dalee nag jàmm ñu waxtaanee prise en charge xale yi nga xam ne dañoo prématuré fii ci Sénégal am nañu dispositif bu baax ci réew mi te ci diwaan yépp bu ñu sukkandikoo ci docteur Aïssatou Diop di conseil technique numéro 2 bu ministre de la santé nee na nag ñàkkul ay jafe-jafe ci wàllu organisation ci yenn service yi mais mu ngi dalal xel yi di yégle ne nguuru Sénégal mu ngi liggéey ngir gën a yokk capacité d'accueil yi ci structure yi. nouveau-né dafa nekk koo xam ne euh, ni ko tur bi waxee. day sog a ñëw ñun ñoo ko war a gàttandu tertu ko kon nag war nañ ko euh, tegal moyen yoo xam ne bu ñëwee vraiment euh, du du du am benn jafe-jafe loolu nag dafay am mu moo ëmb ñoo ànd xale boo xam ne poids am faible na mais lu nekk dinañ ko def ba nga xam ne sax du am pois bu faible am na ay ay intervention yu bëri yoo xam ne buñ ko toppee duñu egg foofu mais bu yàlla dogalee nag xale bi ñëw indi na bakkan mais poids bi dafa faible nooy yem jafe ak yeneen ak yeneen Euh, am na ay pexe ni nga ko waxee am na ay euh, couveuse yu ñu leen di dugal yoo xam ne dafay mel ne comme ba mu nekkee ci un ci biiru yaayam maintenir tàngoor bi ak yooyu mais loolu mooy ñi nga xam ne sonn nañu trop am na nag mais ñi nga xam ne dañu yemamaay ñu mën nañu dugg fu mel ne kangourou wala bu duggee couveuse bu xawee tane rek day génn ñu defal ko kangourou kangourou foog naa ne xam ngeen loolu moo tax fu ñu nee couveuse rek nañu wax kangourou ci wetam pour que ñu yóbbu xale yi taf leen seen dënnu yaay ñu yëg seen tàngooru yaay mu leen di nàmpal bu baax bu ñu ko defee rek euh, évidence wane na ne loolu boo ko defee mortalité bi dina wàññeeku bu baax mais nag di yokk lal yi yéen xam ngeen ne bis bu set hôpital yi ñu ngi leen di yokk lal yi ci biir ñu ngi leen di yokk Euh, experts yi leen di toppatoo tamit euh, vraiment pédiatrie yi bëri nañu fi ak gynéco yi euh, dara du doy mais ay jéego yu mag réew mi mu ngi koy def pour que ñu am compétence yooyu ñu ngi leen di former léegi euh, spécialiste yi bu njëkk xawoon na néew mais ñëpp léegi ñëpp xam nañ ne région yëpp am nañ ko léegi nag di yokk rek moo ci des. agence mondiale antidopage ak organisation mondiale de la santé ñoo signé ab mémorandum d'accord bu ñeenti at boo xam ne dina tax ba kàngam yi nekk ci ñaari kuréel yu mag yooyee mën a weccoo xalaat ci enjeu ak question yi nga xam ne dañoo am ci lutte antidopage ak santé publique déggoo bi nag Genève la ñu ko signé ci teewaayu njiital agence mondiale antidopage ak directeur général. bu OMS mu nar a nekk en vigueur ba benn fan ci weeru octobre bu atum 2027 dina may ab quatre de coopération agence mondiale antidopage ak OMS ngir ñu dàpp li ñuy mbëbët rawatina ci wàllu promotion de la santé ak lépp luy fàggandiku ci nu ñuy consommer yenn substances psychoactives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 travaille à augmenter les capacités des structures. Je pense que tout le monde reconnaît avec nous que le dispositif de prise en charge est là. Il y a un bon maillage dans ce pays. C'est vrai qu'on peut par moment avoir dans certains endroits des, des, des gaps, ce qu'on dit, il, n'y a pas de place. Mais c'est relatif. C'est la réalité, mais avec une bonne organisation des services, on s'en sort. Les couvres, c'est très bien, mais c'est l'extrême. c'est les enfants de très très faible poids de naissance et qui sont vraiment très fatigués. Il y a d'autres alternatives. y a ce qu'on appelle la méthode kangourou. Quand l'enfant, dès que l'enfant va mieux, même si le poids est faible, avec la méthode kangourou, les experts ont prouvé qu'on s'en sort. Donc, euh, c'est un problème d'organisation, mais également tout est fait, vous l'entendez tous les jours, pour augmenter les capacités de ces structures Euh, hospitalière. L'Agence mondiale antidopage et l'Organisation mondiale de de quatre ans qui permettra aux experts des deux organisations de collaborer des informations sur des questions pour lesquelles les enjeux de la lutte antidopage et de la santé publique se a été signé à Genève par le de l'Agence mondiale antidopage et coopération pour aider l'AMA et l'OMS à atteindre leurs objectifs, en particulier en ce qui concerne la promotion de la santé, la prévention de la consommation de substances psychoactives et de drogues émergentes, ainsi que la promotion d'un sport propre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.